salaamaaleykum waa Mak TV maa ngi tudd Séliwane donc euh, nekk euh, sénégalaise boo xam ni en fait Allemagne euh, la nekk waa donc initier projet bi muy design app idée bi nag moo doon mbaa jox mbalit valeur donc nit ñi gisee mbalit neneen donc moo tax suñu projet daa boole ay designer yu jógee Allemagne ak yu jóge Sénégal maanaam ñuy liggéey. ci wàllu mbalit di ci génnee ay produits di ci génnee li li ñi mën a euh, njëriñu muy yére muy meuble muy accessoire muy leneen donc euh, voilà projet bi noonu léegi ñu ngi ci programme benn festival bi nar a am aan bi aan nar am Médina ngoor ak Mamel ak Kédiawaye tuuti idée bi nag moo ni exposition yi du nekk duñ ko def ci ay galerie maanaam ci biir kër yi lañ koy def surtout euh, ci aan lañ koy defe donc waa aan maanaam dañ ñuy ubbil seen kër yi ñi fay exposé designer yi ñi fay exposé seen kees yi donc maanaam ku ñëw di seetaan si day dugg ci kër yi gisaale comme ça exposition yëpp euh, loolu su jàllee na ñu ngi prévoir aussi ay atelier maanaam euh, dina am ay designer nar wane seen xam-xam jàngal nit ñi nan lañu mën a njëriñoo mbalit mi dinañ am aussi ay musique ay musiciens na a ñëw donc loolu yëpp daal ci festival bi la te mu ngi amee du 24 au 29 mai ñu daal dañu bëggoon vraiment mu nekk festival vraiment boo xam ne ñëpp dañ ci mën a bokk buñ woon mu nekk ci ay galerie ci nga xam ne ñoom maanaam dañu tàmm di dem di xool yi aar ñu dañ bëggoon vraiment indi ko ci nit ñi comme ça ñu créer benn proximité et puis aussi contribuer ci changement mentalité yi parce que noonu ñi ñi suñu gisee ñu mën def ni ñu mën defar ci mbalit dina maanaam dina dina indi yeneen idée donc euh, leneen ni aussi moo doon ñi aussi euh, gis nañ daal par exemple yaraax surtout yaraax waalo gi ñu ngi fa am projet mu ngi tudd zéro te foofu commencé nañu xalaat ci mbalit bi lan lañ koy def donc euh, commencé en fait introduire notion économie circulaire ñu def vraiment loolu pour renforcer dynamique boobu bëgg nañ ko defee foofu comme ça ñu ñi gën ci sawar. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di wax ni maa ngi tudd Souley Ndiaye ñu gën ma xam ci turu Gilo nekk coordonnateur du projet AAN euh, ci Yaraax dëkk quartier Waalo gi nekk ñi nga xam ne ni ñoom ñooy travailler ak waa design up dans le cadre du projet du festival Super di wax ni le choix de la commune de comme ni ko suma naataangoo Cheikh Oumar Diallo waxee dañu nekkoon foofu di fa développer benn projet un projet de quartier un projet pilote qui s'appelle quartier zéro léegi nag ce projet quartier zéro déchet moom ba ñu gis que nag la population en nuance surtout euh, la population de Anwaalo gi am nañu conscience sur la gestion des déchets ñu xam ni que nag y a pas mal de gens qui œuvrent am nañu ciy liggéey ci partout dans le monde comme loolu moo ak ay designers yi nekk fii Sénégal ànd ci ne ah dinañu ñëw au niveau de Hann Bel-Air def fa la la majeure partie des des expositions pourquoi parce que kii bu ñu waxee communauté Hann Bel-Air rek on fait allusion à l'hospitalité sénégalaise ku wax Hann bel rek dafay def euh, allusion à au o o brassage de culture euh, à a à à l'ouverture ba pare nous avons des autorités et non nous avons des des populations yoo xam nii. dañu am benn culture mooy que ni ku ñëw ñu yaatal la ci lépp loo nekk incha allah boo leen ci boo ci euh, dugalee rek dinañ ci xajal ba ba sa léegi ci bëgg mu am réussite. et loolu moo waral la commune euh, de Hann Bel-Air ñu def ko choix dans le cadre du festival. pour wax leen tamit euh, durant le festival am na ay activités yu ciy déroulé wu bu ñu waxee que ni y' a y' a les expositions qui se tiendront dans le quartier Plage c' est que dañ ciy woo toute la communauté waaw projet bi li ñuy xaar si waa Yaraax rek moo ñu approprier ko mooy ñoom ñu jël ko moomal ko seen bopp parce que projet bi aussi pour ñoom la xam si ginnaaw si njëlbeen dafa am projet bu nga xam te ne moom moo tudd quartier zéro déchet ñu koy defee fee si quartier waalo gi di jàngal femmes yi foofu ñoom naka la ñuy traité seen ay déchets seen i mbalit naka lañ koy ban njariñ la leen amal won leen it yeneen dëkk yi ñoom naka la ñuy gérer seen i ay mbalit donc ñoom ñu gis ko un peu partout loolu aussi charmer leen ba ñoom ñu ne ñoom bëgg nañ def comme yeneen dëkk yooyu ba tax ñu defal leen ay atelier si naka la ñuy gérer seen ay mbalit bañ njariñ moo si ne ñoom it ñu gis loolu ba war a sax dem bay war a créer benn unité de transformation artisanale foofu nag la projet bi duggee en phase mu tudd euh, festival super mbalit bi nga xamante ne ay designer sénégalais ak ay designer allemand ñoo war a ñëw fii nga xamante ne mooy Sénégal euh, mais war a ñëw tamit Yaraax war a ñëw euh, Médina war a ñëw Yoff ak Mamel ak fi nga xam mooy Guédiawaye di exposer ay mbir yoo xamante ne ñu ngi koy defaree à base de déchets lépp la nga xamante ne mbir la bu ñuy exposer foofu rek si mbalit la jógee waaw loolu daal moom moom mu projet bi waaye it yaraax seen taxawaay la ci xaar ñu jël ko moomal ko seen bopp te xam ni lim liñ ci mën a gis jàngat bi ñu ci mën a am mooy naka la ñu war a xoolee xoolaatee ak naka la ñu war a jëflantee ak suñu ay mbalit ba mën a dund ak ñoom si seen biir kër te du leen yàqal dara po voilà donc stratégie bi loolu la woon surtout maanaam impliqué en fait ñiy dëkk Yara donc impliqué leen euh, en comme ça seen implication gën a gën a gën a taxaw mais aussi parce que comme ni ñu ko waxee donc en fait ci daan séntu donc mu nekk festival bu élitaire boo xam ni euh, ñenn ñi dañoo ci am accès bëgg nañu vraiment mu yaatu maanaam ku nekk mën ci bokk ku nekk mën ci contribuer aussi Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et euh, je fais partie du projet Design App. Donc, euh, euh, je suis coordinatrice du projet et depuis un peu plus d'un an, je, je, la communication entre tous les Allemands et tous les Sénégalais. C'était un peu, j'avais juste, vu une offre d'emploi dans le projet. Donc, comme les autres participants de, de Design App, j'avais vu qu'il y avait une affiche qui disait euh, Est-ce que tu veux participer à un projet d'upcycling Et donc euh, ça m'a très fort intéressée. Donc euh, au début, j'étais juste une, comme tous les autres participants du projet. Et c'est plus tard que quand j'ai rencontré Sally, qu'on a, qu'elle m'a demandé si je n'aimais pas vraiment participer dans l'organisation du projet. Et c'est là que j'ai commencé à, à à et etc. Euh, bonjour, je m'appelle Diallo Abi. Euh, je coordonne le projet Design Up euh, à Dakar. Donc moi-même, je suis artiste pluridisciplinaire et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe Design Up en postulant euh, à travers l'offre que Celiwan avait à, euh, publier. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus Moi, je travaille avec deux personnes, Maria et Ingo. Donc nous, on va travailler sur des accessoires et des vêtements pour enfants. par rapport au projet, euh, comme le disait Célie, il y a différentes euh, cibles. On va, on va étendre le projet dans différents quartiers, notamment Il y aura des ateliers qui sont ouverts au public, c'est très important. Euh, tout est dans le programme qui est sur le, sur vous pouvez vraiment, euh, avec les informations sur Facebook, sur Instagram, vous inscrire en scannant le, le pour participer aux ateliers, c'est vraiment important parce que c'est euh, voilà pour inciter et sensibiliser la population au projet parce que les, tout, toutes les créations sont faites à partir d'objets euh, recyclés et revalorisés. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. n'hésitez pas à venir euh, participer au projet et même donner vos idées. Donc euh, voilà, je vous parle des tandems qui se sont créés Euh, alors, il euh, y, y, a des tandems qui font par exemple euh, tous les deux la mode. Là, je, je donne un exemple, Paul Cajo et Lumo Evans, Paul Cajo et Usman. Euh, ben, les deux tandems, ils, font, ils sont tous dans le stylisme et donc euh, ils font du stylisme ensemble. Après, il y a aussi des, ben, des autres tandems qui se sont créés qui viennent pas vraiment des deux, mêmes disciplines, ce qui est assez intéressant. Donc, euh, on a par exemple Mokhtar et Sabine

donc foofu six heures et am na vernissage bu fa nar am donc le lendemain quatre heures et demie non quatre heures ñu ngi nar dem mairie de foofu maanaam euh, rencontre fa autorités yi aussi présenter projet bi après su boobaa def benn parcours biir kër yi comme sa ñu ngi commencé gis en fait exposition yi donc euh, donc exposition yi dina am tous les jours euh, te à partir de du lendemain muy le 26 ñu ngi commencé workshop yi nag donc atelier yi su boobaa ku nekk mën na ñëw jàng maanaam euh, ni ñuy recycler mbalit mi donc euh, le 28 incha allah ñu ngi am euh, benn concert muy concert frère Guissé ak ñeneen ñu nar a ñëw aussi plage ou arbre boobu aussi fu muy amee exactement dinañ ko publier ci réseaux sociaux yi. Euh, voilà dimanche nag ñu ngi maanaam clôturer ci match bu football fu nar a am géejawaay euh, muy siège u Sénégal Excelsior muy suñu partenaire bu yàgg donc foofu ñu ngi nar a def benn match de football euh, ak ak xale yi donc fan la ñu en fait tëjee festival donc ñu ngi leen di ñu ngi leen ñaan ngeen ñëw ngeen fekkee ngeen participer ngeen jàpp ci. aussi véhiculer euh, message bi ñi ñi gisee mbalit mi neneen ñi ñi di ko njëriñoo et puis suñu dëkk bi set am luñ ko luñu lu mu lu mu indi ci liggéey mu am lu mu indi ci créativité aussi mu am loo xam ni lu mu nekk loo xam ni aussi dina jëmal Sénégal ci kanam. waaw mm-hmm. ah, maa ngi tudd Seydina Oumar Diallo nekk si projet design ak comme ni ko sama frère waxee Cheikh Euh, ñu koy doxal na si wàllu euh, groupe bi si animation groupe bi des fois dafay laaj groupe boo si nekkee ngeen di am groupe ku koy animer euh, je je fais de mon mieux pour di animer groupe bi ku bëgg a dugg si groupe maa lay teet ba nga dugg si groupe bi ëllëg tamit ku nekk si biir groupe boo amee ay problème fu nga mën a bëgg a dem man maa lay tett na la defeel nii defeel na leen moom par exemple tamit di dox tamit si biir groupe bi di def ay émissions yi nga xam ni day boole euh, mbokku allemand yi ak sénégal yi émissions yu tudd ay invité surprise des fois j'invite un allemand ou bien un sénégalais ce invité surprise ma toog saag dinaan l'invité du jour euh, dinañ ko am samedi day toog saag rek kooku daal découvrir boppam ak tamit actu groupe maanaam damay animé groupe bi si côté question réponse des fois ak ay yeneen mbir daal yeneen fànn. Mm-hmm. pour wax ni population bi yëpp lañ ciy woo ndax bu ñu waxee que ni suñu ay partenaires pour ñu mën a réaliser projet bii ñu bëgg a def festival bii ñu bëgg a def à Hann bel ki ñu ubbil buntu dëkk bi c'est la commune de di ci woo le maire de la euh, de la commune de Hann Bel-Air ak son conseil municipal. di wax tamit dañuy dañuy euh, sant waa euh, conseil de quartier bu Hann Plage ndax ñoom ñoo ñu yaatal ci biir quartier waalo gi ba ñu mën fa tenir festival bi di woo daal en général toutes les populations ak association yi nga na ne nii yëpp mbooloo daje góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp yi nekk a Hann ñu ngi leen di xaar incha allah pour que ñu am festival bu neex festival boo xam ni lépp luñ ciy xaar daal en général dinañ ko ci am côté réussite je vous remercie